ak lu ma mënul naa ko ci def rey ci sama bopp bàyyi complètement recherche yi tey man dama am métier je suis ingénieur de classe exceptionnelle j'ai fait plus de dix-huit ans à l'université ñu bari ci ñi fi nekk xam nañ ko foofu lañ ma daan fekk <laughs> mais buñ ma wàcce woon damay dellu jël sama liggéey. direction de l'emploi li ñu fa jàpp mooy charrette mbaam yi ñu fa joxe woon fële Diourbel yow la ñu fa jàpp. <laughs> <laughs> non loolu moo loolu moom loolu moom non loolu moom vraiment fake news la woon. Mhm. parce que ni ñu woon affaire bi demewul woon noonu. nan la demee woon voilà benn waay moo ni woon dafa gis ni seen koñ nit ñi dañ doon gas di jël mbalit mi di di suul. mu ne est-ce que du ma benn projet ramassage d'ordures mais comme ay moyens naa wut ay charrette quelques charrette moom ci propre xaalisam. Mhm. pour di jaar ci kër yi di tonni mbalit nit ñi di fay 1000 francs te tey dëkk yu bari boo fa demee moo fa am. tey Touba ak yenn dëkk yi sareet yow mbaam yooyu ñooy transporter nit ñi jeune ne parle même pas d'ordure je parle de personne tey boo demee sareetu mbaam yooyu ñooy transporter ndox mi nit ñi di naan ndox mi ñuy jële ci ndox foofu xam nga ndox mi dafa naqari ndox mi ñu dugal ci biteel yi dugal ko sareetu mbaam ñooy dem jaay ko nit ñi ñu jël ko di ko naan. voilà léegi moom bu ne dafa bëgg régler problème boobu parce que gas di suul mbalit baaxul. mu ne c'est une bonne idée ba recenser ay famille yoo xamante ni accepté nañ adhéré hmm? mu ni 1000 francs la ñuy joxe mu bëgg a lancer problème bi euh, projet bi mais ni dafa am problème mu booy yu muy jël emploi quoi créer emploi pour ñi koy dawalal sareet yi ak ñi nga xamante ni ñooy dem di inscrire ñu bëgg bokk ak ñi koy gérer hmm. comptabilité affaire bi mu ni ñu mu créer entreprise am bien avant yàgg na daan ni dafa bëgg Sénégal environnement dafa dafa bëgg adhérer ci convention pour ñu jàppale ko ci salaire yi ñuy fay booy yi booy yi liggéey salaire yi leen di fay. Mm-hmm. ñu jàppale ko ci. ñu ne ko waaw léegi booy boo jël boo ko waree fay cent mille ñun dinañ fay cinquante mille parce que loolu mooy état employeur quand Sénégal jeune sénégalais bi bu décider entreprendre am problème mu charge salariale pour ñi muy recruter tey bu ñëwee ci ñun war a jël journaliste war a jël juriste wala jël infographe dañ waa jël leen. ñu fay cinquante pour cent nga fay 50. waaw loolu moom waa PCCI yi ñu ngi ciy souffrir ah. mais dafa am loo xam ne dañ ko gis déjà fan yi parce que moom direction de l'emploi la jiite euh, mu am benn euh, statistique boo xam ne dafa génn muy euh, bi nga xam ne moom la waa ANSD génne. Mhm. ñu wax ne sénégalais yi journée bi 24 heures yi. dinañ ci mhm. toog lu tolloog 17 heures yoo xam ne duñ def dara. maanaam 17 heures ci 24 heures yi mhm. du de l'emploi 17 heures ci journée bi waaw 17 heures ci 24 heures yi dinañ direction de l' emploi aussi am na loo xam ne waroon na ko mën a def ci réew mi te defu ko. moo posé la benn question yow ñaata heure ngay liggéey ci journée bi. <laughs> <laughs> bu ñu génne woon heure yi ngay liggéey. nga ne xam nga bu ñu woon heure yi ngay liggéey li ngay liggéey ci journée bi. yi ci des nga toog fii des fois ngay waxtaan ak gars yi ñoom Pam Ndiaye ak yooyu <laughs> ah yi nga génn dem sa koñ waxtaan ak gars yi ci football ah, guddi gi nga génn waxtaan ak ñoom ci ay affaire film ay affaire demee noonu donc boobaa 17 heures yooyu day mat mais c'est pas ça qui est important mm-hmm. ce qui est important mooy dimension bi ñuy waxee mooy le sénégalais en général culture du travail mën na koo bañ a am. si mën na koo bañ a am laa wax. Mhm. surtout les jeunes tey boo xoolee ci côté ci côté ci côté ñi ñuy toog. xam nga ñuy toog ñuy taxaw fii nii bokkuñu ci. yow leeroon na le jeune la jeune jeune jeune yi Sénégal jeune yaa ngi góorgóorlu moom laa la c'est ça moom laa loolu laa nekk di wax. loolu laa nekk di wax ça veut dire kon statistique boobu ça pose problème parce que tey boo jëloon boulevard bii nii. nga xool jeudi le matin waaw non loolu laa la wax xam nga dafa nekk am lu may expliquer xam nga ANSD bu ñu def enquête dañuy def échantillonnage mhm. échantillon la ñuy jël par rapport ak zone yi ñu defe enquête ñu def enquête boobu am nga majorité zone yi euh, booy xëy fii le matin di longer route yi di jaay ay ndaamaraas ay et cetera mhm. mais ñooñu yow leer na la yow ñoo ñu danañ liggéey ci journée bi lu ëpp 18 heures. c'est vrai ça dire que 6 heures moo leen dese. parce que le matin nga leen gis yu ñuy jaay ba guddi gi vingt heures dañuy topp ci oto yi ci embouteillage di jaay n'est-ce pas maintenant su fekkente ne nii nit ki day wut liggéey kii wut liggéey dafa mel dafa war a mel ni kii wut extrait de naissance dafa war a mel ni kii wut casier judiciaire dafa war a mel ni kii feebar faju ji wax nañ ko état organisé le jeune demandeur d'emploi qui est à Ranérou wala à Médina Yoro Foulah xamuñu existence am xaw ma existence am bu ma xamul existence mais kooku nan laa ko war a wutal liggéey looloo tax ñu ni kiy wut liggéey dafa war a déplacé wu dem ci structure bi nga xamante ne nii wala le service public de l'emploi bu ñëwee mu inscrire par exemple ñun tey ku ñëw ci ñun dañuy def certificat d'inscription wax la ne la dem wan la demandeur d'emploi nga léegi boo nekkee demandeur d'emploi nga def journalisme génn ci benn école de journalisme nga nekk journaliste tey wal Walfadjri ñëw daan ni dama bëgg a jël ay jeunes dama bëgg a adhérer ci convention état employeur ñu dugg ci base données mu ni soxla naa cinq journalistes deux monteurs trois caméramans ainsi de suite dañuy dugg ci base donnée boobu ñi fa ñëw ci ñun dañu dugg ci base donnée xam nga ki fa ñëwul moom mënuñu xam existence am mhm. daal di rechercher daal ni ah ñun kat base bi am nañ fi dix journalistes yu inscrire qui sont en jour ñu jël di journalistes yi liste bi ak ñeneen ñu ñu soxla jël profil yëpp ñëw jox ko Walfadjri ni ko voilà ñii ñoo nekk suñu base donnée moom bu trier ba choisir cinq yi mu a choisir ak infographie ak monteur yi mu a choisir mu jox ñu liste bi ni ñi laa choisir kenn ku nekk ci ñoom lii lañ koy fay mhm. par mois ñu jël liste boobu ma terminé ñu jël liste boobu dugal ko ci convention bi Walfadjri signé ñu signé alors mu wax ni est-ce que euh, bu ñu ko dégloo bu baax baax ak raisonnement donc dina justifier lu tax état di lajjati li nga xam ne mooy l'employabilité des jeunes au moment où les pays développés ñoom ñi ngi gën a encouragé wala a jàngal seen xale yi dès le bas âge ñuy comment entreprendre l'esprit entrepreneurial mhm. moom mi ngi ci léegi état danga war a déplacer wu ñëw inscrit état jox la liggéey alors ko dans les autres pays mun na dans les autres pays sous-développés sax mun naa l'exemple la Côte d'Ivoire ñi ngi def culture de l'entrepreneuriat waaw xam nga euh, damaa jàpp ni politique de l'emploi pour ñu réussir ko doon na baax trop ñu bàyyi xel euh, toutes les catégories socio-professionnelles euh, damay joxe exemple profité waale jo euh, jàllale benn doléance boo xamante ni mhm. nga xamante ñoom ñooy mécaniciens yi mhm. ñoo ko wax nee nañu c'est-à-dire que ñoom lan moo tax ba léegi nii ci côté wàllum emploi état mënu fexe ba wutal leen boo xamante ni dañ fay nekk moo gën fu ne fu ñu toog rek ñu ñëw jóge leen fa jëlee leen fa te ñoom ci société am njëriñ moom mooy société bi donc mu nekk doléance boo xamante

ma répondre non non man ma répondre la après boo jëlaatee ah, kàddu gi di précision c'est-à-dire li may wax nii yëpp ay interrogation la yu sénégalais yi di posé donc les comme yaay directeur de l'emploi cela sera l'occasion nga leeral li ci li ci war yëpp beneen wàll gi tamit mooy am na sénégalais yu jàpp ni li tax politique de l'emploi mënta fexe ba am résultat yi ñu bëgg mooy dafa am lu ñu tuddee d'abord politisation li nga xamante ni moom mooy mbir yi emploi yi parce que parents yi foog nga nekk militant boo ko far ak ñoom pour politisation des postes clés de l' administration tey jii moom mi ngi nekk il est directeur de l' emploi. Mhm. naa wax ni moom poste clé la occupé ci administration sénégalaise mais malgré tout ça la am na foo xamante foofu la féetee donc est que loolu tamit nekkul benn gàllankoor boo xamante ni. donc ah, loolu c' est problème il de soutenir il y a des de l' yoo xamante li gënoon mooy ñu bañ ko politiser parce que saa waay est-ce que ku bokkul APR ku ñëw bëgg liggéey di nga ko wutal liggéey. loolu tam c'est une interrogation waaw parce que bu ñu demee déposé est-ce que leen jox liggéey. <laughs> donc les jeunes de l'APR dañuy plaindre toujours ni ñoom kenn dindu leen en charge loolu boo xooloon réseaux sociaux yi sax gis ko ci par contre posé nga question bu am solo xam nga ci ministère euh, bi ñu génn noonu dafa am direction de l'apprentissage. Mm-hmm. apprentissage mooy jël question ñi nga xamante ne ni diplômé wuñu mooy ñi jóge ci daara yi. ñi nga xamante ni defuñu benn formation quoi amuñu ay métier ak et cetera donc direction de la l'apprentissage mooy gérer question yooyu parce que euh, affaire bi dafa am employabilité moom la Khady wax sànq mhm. am emploi il faut nit ñu comprendre employabilité boobu par rapport ak emploi mooy lan employabilité bi mooy ndax nit ki mën naa liggéey am na formation ndax nit ki am na formation am na métier ndax nit ki am na qualification ça c'est le rôle de l'État de former ces jeunes c'est loolu laay loolu mooy compétence technique yi nga xam nit ki war na ko am ñu ni ki électricien bâtiment la plombier la monteur la infographe la et cetera loolu il faut ñu former la mais comme ni mu waxee dafa am ñoo xamante ne nii tey euh, dañu leen a war a dugal ci dispositif bi d'ailleurs ñun c'est pourquoi on parle de personne en âge de travail wu wuñu ki am diplôme ki amul diplôme ki âgé ak ki âgé suñ c'est ça ñun ñooñu ñooy suñu cible. léegi bu fekkente ne da nga ñëw ñu ni amoo moyen formation parce que formation professionnelle dafa chair tey booy jàngal nit ki électricité il faut nga jënd ay appareil jënd ay fil jënd ay kii bu ñëwee c'est de la pratique c'est du learning by doing donc bu boobaa day nécessité dafay nécessité ay ressources te formation boobu bu la ko privé di defal ah. day cher loolu tax 3FPT di intervenir temps yëpp gis ngeen ñu ni boo bëggee def formation. fond bi mooy fay quatre-vingt-dix pour cent wu charge yow mi bëgg a def formation bi dix pour cent rek ngay fay temps yële lancé woon nañ fi des certificats de spécialisation professionnelle yoo xamante ne nii amul niveau d'étude ki jóge daara sax mën naa ñëw bindu pour def plombier pour nekk plombier. Hmm. mën naa ñëw bindu pour nekk maçon mën naa ñëw bindu pour nekk coiffeur wala mu nekk tailleur wala dara et cetera. beneen bi mu wax loolu loolu mooy dimension c'est bien intégré parce que boo xoolee dans xëyu ndaw ñi sax mhm. dimension apprentissage bi dafa am parce que war nañ ci créer vingt mille emploi ci côté boobu nga xamante ni dafa concerner des non diplômés mhm. ñoo xamante ni nii ci zone boobu lañ jóge par contre li nga wax ni euh, emploi yi dañ koo politiser mais rappelé ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent emploi yi ñuy créer ci dispositif yi ñu wax parce que ñun on gère par la fonction publique secteur privé la xam nga moo tax ma lay wax ay eh, Walfadjri yooyu maintenant Walfadjri est-ce que waa moom mu ñëwee dana ni kii AFP la wala kii APR la wala et cetera du ma koy recruter non. parce que c'est l'employeur privé qui recrute ñun recruter wuñu est-ce que comprendre nga dafa am ministère de l'emploi am ministère de la fonction publique ministère de la fonction publique moom mooy recruter ñiy ñëw ci état. mooy bi keroog ba jiite vous avez juste de relais entre l'employeur et les employés voilà ñun. Euh, suñu relais euh, secteur privé la. oui employeur privé yi la ñuy travailler donc bu ñuy choisir ñun duñu leen choisiral. comme li ma wax sànq soxla nga cinq journalistes gis nañ suñ base donné dix journalistes dañoo jox liste mais secteur privé bi ngay wax nii tey ñi ci ëpp daanaka mooy wàllum informel bi euh, comment faire tey pour que Sénégal au lieu que secteur privé di nekk benn fardeau pour l'État parce que loolu lañ ko jàppee euh, nan lañ mën a def tey ba mu nekk benn euh, lu nga xam ne déjà day nekk lu État mën a sauter même. pour pour développer. ab dëkk parce que secteur privé doon na lu am doole fi nekk nii ci Sénégal. donc am na am solo parce que dernièrement am na benn stratégie nationale. boo xamante ni c'est le euh, c'est la stratégie nationale pour le développement des entreprises privées du Sénégal boo xamante ne ni ministère de l'économie et des finances travaille na ci ak acteur yëpp ba ñu ko génnee ci stratégie boobu yooyu am na ci boo xoolee ci Covid bi ñu génn amoon na euh, axe 3 boo xamante ni stabilité économique et maintien des emplois la woon te foofu dafa jëmoon directement ci secteur privé bi par rapport ak contribu consolidation emploi yi nga xam ne dañ leen a waroon a perte convention état employeur bi ma lay wax patronat bi moo koy signé c'est-à-dire secteur le secteur privé national CNP confédération national des employeurs du Sénégal le MEDES et cetera UNACOIS et autres mhm. ñoom ñoo koy signé ça veut dire que dix milliards yi bu ñu ko dégagé c'est pas pour l'État mais c'est pour le secteur privé national mais pour permettre leen à ce que mën a wàññeeku à l'aide de la convention état employeur bi ngay wax les travailleurs gis ñu ci seen bopp li ngay wax dama ko dund donc euh, je prends l'exemple de PCCI ah. ak problème am pourquoi après boo leen signé ay ay accord avec euh, le le l'entreprise su si surveillance parce que les travailleurs ñoom ils sont lésés te ñu bari les étudiants ak ñi nga xamante ne dañ dañ ko def comme benn genre tremplin histoire euh, ci li nga xam ne mooy convention état employeur posé nga question bu am solo surtout les entreprises étrangères surtout sànq affaire entrepreneuriat bon ma répondre ci affaire entrepreneuriat bi nga wax sànq xam nga sànq da nga wax affaire wu euh, culture entrepreneuriale fexe ba cultiver ko ci nit ñi. Ah. pour que parce que tout simplement ñun xam nañ ko. les Ivoiriens ils l'ont réussi hein. ñun aussi on est en train de réussir ça avec la DER. Mhm. <laughs> la DER euh, aujourd'hui presque en moins de deux ans nous avons financé quatre-vingt-six mille cent quarante-six. def nañu si entrepreneurs. voilà maintenant fi may waxee mooy. tëj ko bi résumé ko voilà mu résumé ko. ci en terme d'emploi. Mhm. actuellement état du Sénégal dafa dérouler programme bu ñuy wax xëyu ndaw ñi. programme d'urgence pour l'emploi et pour l'insertion socio-économique des jeunes programme bi bañ ko déroulé 2021 ak léegi créé nañ ci 65 234 emplois